salaatu allazi fi kulli shahrin wa fi safar xamaani ala rajim bismillahi rahmaani rahim واغفر لمن بنوا بنا حارفي واغفر لمن أمرهم به جميع واغفر لمن بنوا بنا عارفي واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من عانهم على بناء الذي بفضلك انطلى وفي لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا ولتجعلنا ساعة الامتلاء نارا ورحمة بالانتهاء subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin ñoo ngi siyaare bu baax di ginnaaw bi ñu jiitalee siyaare bi sëriñ Touba Cheikh Modou Mountakha euh, di siyaare sëriñ Yaafiya bu Sall Imaam tey nag suñu jotaay bii buñ ko gisee li ko waral mooy daayira Muxaddamaatul Xidma Touba Espagne euh, ñoo àndaat teewaat fii ci kanam sëriñ Yaafiya bu Sall Imaam di def nan daan def rek. ci seen jàpp ak ànd ci liggéey bi ci teewaayu sëriñ Bakke Ndiaye président fédération bi ak sëriñ Mor Tambi du mi ak Baye sëriñ Ndiaye Alaaji Abdou yi ak mboolem waa Espagne gi yëpp ñoo teew euh, dañuy gàttal kàddu yi rek ndax euh, lépp luñ mës a dégg ci cant ak ngërëm loolu daayira bi moom mën nañ liggéey bi kon dañuy jëbbal kàddu gi Alaaji Abdou yi ñu ñëwaat nag nan daan ñëwee ngir dugal seen loxo ci wàccaayu màggal gi ànd ak ñoom ci liggéey bi ci lépp lu war ci biir liggéey bi kon bisimilah alaaji bokki taaliba yi sangu su tedd ñu leen siyaar bu baax di leen balaax nag di leen balaax di sukk ci kanam sunu sang bu tedd bi ci jumaa ji sëñ Afia Busa di ko ñaan mu yàgg fi lool lool lool ak sangam bu tedd bi sëñ Muntaxa Mbàkke mu baax mi yàlla na fi yàgg tànd ak wér ñoo ànd ak njabootum gii nga xam ne ni ñoo yore jumaa ji yàlla nañ fi yàgg ñu yàgg ko fekk ci daraja Seex Xaadim sunu borom du dara ci la muy maye yàlla na ko def ci daraja Seex Xaadim di nuyu itam suñu bokki Espagne yi nga xam ne moom lañu àndal ñii ci liggéey fa tubaarkalla kon mel na que ne sëñ Mbàkke Njaay buñ ko tuddee rek dafa yóbbaale ñëpp ak sëñ Mor Tambédou bi nga xam ne mooy bi président daayira bi e fa buñ ko yóbbatee dafa yóbbaale ñëpp di nuyu bokki Espagne yëpp benn dëkk bàyyiwuñ ko waaye le conseil Cheikh Assane Diop mi nga xam ne moo yoroon liggéey bi soññe soññe ba activité mu jébbalaan ñu ko demal jox ko ma ne ko walaal siim pour ngeen demoon rek doy na man ja yooyu ba noppi li ci gi ñoo ko yore xanaa kay sargal moo fi nekk nun fatuwaarkal liñ suñu nekk suñu dënn mooy liggéey Cheikh ba keroog ñu laal suñu ndeyjoor bi yàlla na yàq yàq eh, kon nag sëñ sang bu tedd bi bokki Espagne ñu ngi lay nuyu di la suyaare di la baraq itam te di la baraq e di commencé ca sunu sang bu teddu suñ Muntaxa Mbakke ci lii nga xam ne ni moom la ñu sasoon ca gannaaw ñu nekkoon ci di ci dox mi ngi ci yoonu di ñëw nga may ko xel bu baax yàlla sàng nañu sutura li jamono ji naqari naqari naqari mel na feeñu ci kon nag loolu sant bu baax baatin dugg na ci bu wér boo xam ne nii ne walaay si buñ ko waxee sax nun dafa doy war kon sang bu tedd bi ñu leen dafa gàttal ko di siyaare bu baax di siyaare lii nga xam ne ni moom lañ bokk eh, dooñu indi lii nga xam ne moom la seexal doon lijjanti ci wàllu mu mu xadamatul xidma bi ci waa Espagne gi yëpp bokk ko mu tolloon ci mille cinq cent euros moo fi nag ak cent quatre vingt mille loolu la fi njaboot gi jotoon a dajale xam naa jamono bi rek la wax dëgg yàlla waaye xeeb nañ ko lool nag ñu fatuwaar kaal ñu ngi la koy siyaar bu baax a baax a baax waale ñu ngi siyaar ñëpp kon nag eh, sëñ Abdoulaat mm, mbir maa noonu nga santal ma njaboot gi fu sant commencé nag noonu fu mu jëm rek foofu lañ commencé ci xol bu sedd guy ci Espagne ndax lii nga xam ne moom lañ kenn koo xam ne nii ne li ma gëm te gëm ko yéene ji moo ëpp jëf ji mm-hmm. waaw loolu nag nga yóbbaale ko xam ne nu ñaan yàlla wér ak wér la ba xat-xati jamono yëpp saabarum génn ñu bañ delluwaat ci liggéey bi yàlla na ko yàlla def ci daraja njool màkk barke Seexul Xadiim barke sëñ Dawra tan barke Njare waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu tam moom moo seetoon seet xam seen passé ba sant leen ko kenn digal ko am sax jàpp ne ñun ñoo ko naa ko waa Espagne waaye yàlla xam na ne moom moo ko xalaat boppam ñu def ko loolu moom boo lañ ci dafa njort noonu kon yéen seen passé moom kenn du ko waxati ndax sax dama seer na ko te jëfe ngeen ko loolu moom kon sant yàlla rek ci war kon ñi ngi sant ñëpp suñu wàllu bopp di di ñaanal ñëpp itam di ñaan ñëpp yokk ba ni nga ko waxee ku nekk li nga bëgg nga def ko waaw kii mooy suñu ndaw ci yéen yéen yi lépp kii mooy suñu ndaw suñu technique diggante ak yéen yéen nag yéen yi moom moom seen ndaw yéen ay kilifaam yéen liggéey bi waaw waaw moom la fa ma xam ne moo taxoon mu nit seen gannaaw yéen yéen ay kilifa yi li nga xam daal liggéey bi seen loxo mooy seen ndaw suñu diggante ak yéen kon ñu ngi sant bu baax tey gërëm te xam ne yaakaar suñu taam tas mukk kanam rek la jëm ndax lii waxtu yi ñu ko songo daane ko moom ku xam ne ne Pastef dong ko def ndax fi jamono toll ko na xam ne ko ñëpp dépassé ñu daw juróom yoo xam ne nit bàyyi na ko këram liggéeyut ànd ak jëf ji loolu moom euh, la xar baax la la la waaye nag Pastef jëm moom mooy li am solo mooy la xam ne lu mu jiite rek Pastef lu mu jëm man ko waaw Pastef bu murit lu mu jëm man waaw mooy lii rek lii moom Pastef feeñ na ci yéene feeñ na ci ak dogu feeñ na ci ak murit feeñ na ci ndax lépp li ma wax yëpp doxee murit la te moo ngeen doxee ba lii sotti kon jërë ngeen jëfati jërë ngeen jëfati da ngeen santal bokki taalibe yëpp mhm. mhm, mhm, incha allah incha allah incha allah bu baax bu baax sax bu baax sax kon am daal nga sax déglu kàddu yi ñu teg ci ginnaaw kàddu yi sëriñ bi ndax kàddu yi fees dell yu matale di jël am nuyoom ak mboolem ñi bokk ci daayira bi di ko teg ci loxol Alaaji Abdu mu tegal ñu ko ci loxol sëriñ Mbàkke Njaay ak jëwrin yi ngeen àndal yëpp ñu ci ràññee euh, sëñ Tambédou yi sëñ nga xam ne moom mooy euh, président d'honneur bu fédération bi sëñ Fallou Kane sëñ Baye Abdou euh, Baye Abdou Mbaye waaw ah, sëñ Fallou Kane mii lay wax sax waaw ah, sëñ Cheikh Lo ah, sëriñ Samb Alaaji Mandiaye Gueye sëñ ak Baye Ibrahima Xasida ak El Hadj Adi Troya ak sëñ Ibrahima Lo Xasida ak eh, sëñ Assane ak sëñ Cheikh Lamme ñoom ñëpp di ay jawrin yoo xam ne wax dëgg eh, yu taxaw ci liggéey bi bu baax a baax eh, sëriñ bi ñoom ñii ni nga ko waxee léegi barki dem maa ngi koy wax ci benn émission bi nga xamee ne suñ Mamor ànd na ak ñun ñu génn lim ñu doon def mooy fu mu dem balaa wax dañuy jox kàddu ñu wax leeral liggéeyu daayira bi. tawfeex si mbay jiit ci lépp rek lépp ngeen ko daan def sëñ bi jiit nooyal ko te noonu la moom ko liggéey ku nekk day yenu coono bàyyi la ak ndam <laughs> ndax da def loo xam ne leer na mënoo ko ko def remoon na xam nga ne am na ko ci jàpp alhamdulilah yéen lu ëttoon xam ah, nga am na ko ci diggee si moo mel noonu da yenn ndam da yenn coono bàyyi la ndam la waaw ndax jamono yi nga ko defee moom ku ne xam ne mm-hmm. dugg lëf dugg na ci biir waaw waaye lëf loolu ci positif lay tege mm-hmm. ndax dañu wilaag sëy mi ngi ci positif taalibe mm-hmm. wilaag sëy mi ngi ci positif taalibe mi ngi ci positif taalibe waaw lu sëñ léegi yaay mënut a jëriñ ko amul positif ci kon loo ci jar ne kam nag jar ne mooy ne kam sa positif moo tax may wute positif ndax <laughs> positif yow wute séeréer nag mu ñor. waaw bu sa yàgg fa lool fi wér mag sa ak ku la ko yéene man آمين اللهم صل على سيدنا وأسود وحادثة المسلم وقضينا وقضي حاجة كل مسلم لو أنا أجاب ما يستجاب توفيق وتيسير والدعاء والتوفيق في لب صلاة الذي في كل شهر وفي سفر حماني على